fa même bu dee yegg nañ fii Oubala dit tantôt est-ce qu'il ñoo euh, mënuñu woon euh, gérer l'affaire euh, autrement diffamation entre deux politiques médiation hmm, excuse possible qu'on passe à autre chose der hmm, dama déglu ñu fi wax yëpp te kàddu bu ci nekk kàddu bu am solo Charles li may retenir mooy les gens enjeux yi ñu ngi ailleurs Malal nous dit que c'est notre quotidien faut qu'on en parle mais on espérait un autre quotidien pour les Sénégalais ñun beneen quotidien dañ bëggoon discuter quotidien bu ñu révéloo parce que loolu moo tax ñu politique buuba réero wuñu quand je dis que ne sujet bi waru fi woon am mooy nit porte nit plainte du débat mais bu ñu fi yegg see c'est parce que dafa am lu fi xew xewati fi te du ñett xam ngeen ne nee nañ rapport bi ex xam nga rapport bi kenn publié wu ko mais rapport bi ñu tëjee Khalifa Sall kan kan mu ngi ko mos a aujourd'hui il ne s'agit pas de benn nit ak benn nit on parle des deniers publics mm-hmm. ministre wax na fi journaliste soo ko répété ma porté la plainte mm-hmm. pourtant ministre c'est pas n'importe qui buuba mii sequma ak moom dara si réew mi bokk su ma ko accusé dara mais dama ko tooñ mais buuba su ñëwee nekk ministre terme étymologie ministre mooy serviteur d'une république mm-hmm. donc quand tu te dis ministre je ne je ne vois plus Mame je vois le ministre de la république yor sama alal man lu ma moom benn des institutions yu ñu samp des corps de contrôle génne un rapport ne attention lii war nañ ci jër mm. mais moo Dieu c'est ça le débat mmh. alors Macky Sall veut faire de sorte que Ousmane Sonko tollook Mame Mbaye Niang xam nga ne Ousmane Sonko mm-hmm. liñ naan tan bëti tan dafa dafa weesu meddu melen tan mooy loolu ñu ñun xooluñu Mame Mbaye Niang détail moo tax bi ñu commencé wax ji attardé mu ci dama ne moo tax ma ne ñun suñu candidature 2024 parce que mbir mi foofu la. Mhm. invalidé candidature Ousmane Sonko ci dëkk bii ah mi ngi mel ni nga ne aatu borom réew mi la ku ko rey ku ko lekk dee ku ko naan mandi ku ko rey génn réew mi Ousmane Sonko dafa am cër Pastef dafa am place mënuñu accepter ñu ñuy buntu xataal comme ça parce que c'est comme ça qu'on commence à vivre hein. ñun les membres de PASTEF on est des sénégalais bon teint mais de plus en plus on se rend compte que ne ñun comme c'est ay paria lañ quoi bu ñuy acharné wu suñ ñun kenn du wax bu ñuy xoxatal kenn du wax combien de meeting de Kër Massar. ah non mais on n'est pas là non quand je dis kenn du wax quand je dis on n'est pas non. quand ah, je monsieur Fofana. quand je la mobilisation des Sénégalais pour PASTEF montre que effectivement les Sénégalais sont il y a une majorité de Sénégalais qui est d'accord avec vous ils manifestent effectivement leur soutien. par leur présence et par leur mobilisation je ne sais pas ñan ngay wax kenn du wax mais les sénégalais parlent déjà et nous sur les plateaux buuba li mu wax léegi li nga wax li mu wax léegi li nga wax am na par de vérité je peux te le concéder non non non c'est-à-dire il ne faut pas quand même il ne faut non il y a une chose c'est de la victimisation non non non nekkuñu victimisation parce ah, que non non non non attends non xam nga xam nga dama la may ci sama kii nañu waxtaan. <laughs> waaw d' accord ñu discuter. dama la déglu li nga wax mën naa ci d' accord. d' accord parce que 21 mars. sénégalais yi génn def bokk yi. très bien. meeting Kër Massar nit ñi génn. wane lu kenn du gis mais loolu sëñ bi. ci at ci dernière ci ci ci année bii la ci dernière année yi la Pastef judduwul tey. meeting Kër Massar lu ñu doon commémorer lu tax c'était non même rek. xam nga l'histoire de notre parti dañ ko xam. oui Kër Massar foofu première. militant Pastef bu ñu rey une femme foofu la commencé. oui ça c'est vrai. quatorze personnes ont été tuées. oui mënuma mënuma gis des vies yu ñu perd di ko méngoog ak mobilisation foog nga xam ñun fi ñuy xoolee un peu parce que on perd des vies ñun ñun aujourd'hui nous avons lu Keïta mais un gor mi ngi ci kaso bi. carrément xam nga bu ñuy dund yooyu comme yow tey nit nit dof mu ñu def ci kaso bi tey ak lu lu mën a xew affaire boobu day rëy dafay rëy sa bët. carrément ce dont on parle c'est des vies moo tax ñun. Mm. il faut nous comprendre quelque mm. li ñuy dund ñoo ko xam. Mm. parce que ñun ñooy cotiser. vous ne vous rendez pas compte mais xam nga suñu activité politique am na am na lu ci bokk am nga lan la. dajale xaalis dem ci kër xale yi nga xam ne dañu leen rey. ñi nga xam ne seen tànk dafa dagg. am na ñoo xam ne ñu ci hôpitaux yi. ñu leen di faj ñi ñu war a yóbbu France ça c'est notre quotidien. xëy na sénégalais li ñuy gis mooy meeting bu fees bii yooyu la ñuy gis mais dans notre quotidien jël en charge les victimes de notre combat daf ci bokk donc suñu discours mënut a nekk pareil donc il faut ma comprendre sur ce point mën naa comprendre li ngay wax mais comprendre ñu côté boobu am na lu ñuy dund loo xam ne. suñu biir suñu biir néeg la. Mm. et et des fois on est très seul. Mm. donc pour revenir booba one est d' accord wax ji ñun xam nañ ko. moo tax mais mais quand vous dites que vous êtes seul c'est là où je suis pas d'accord avec vous. sur certaines choses on est seul. maanaam je suis pas d'accord non je peux comprendre que mënoo ko nangu parce que en tant que citoyen le Sénégalais est solidaire à l'autre Sénégalais mën naa comprendre fi nga bëgg mais la réalité est que aujourd'hui aujourd'hui ce que nous vivons nous le savons. mais dañ non le discours politique de Pastef aujourd'hui est un espoir. moo fi ma bëgg a kii rek et et franchement bon procès lañ jëm procès lañ on va se battre. Mm. tey man su ma sañoon ci beneen sujet lay wax. moi j'ai écrit un livre avec le président Ousmane Sonko sur les territoires du développement su ma sañoon ci lu lay wax. je suis membre de son cabinet je m'occupe de tout ce qui est programme présidentiel muni législatif et municipal su ma sañoon ci loolu laay wax. Mm-hmm. sama sama jaar-jaar c'est c'est la finance et les planifications su ma mm-hmm. la diversion. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar Macky Sall bëggul ñu wax ci bëggul ñu wax ci planification bëggul ñu wax ci finance bëggul ñu wax ci pauvreté bi trente six mille milliards il y a plus de pauvres au Sénégal loolu duñ ci wax mais pendant ce temps qu'est-ce qu'on fait on instrumentalise une justice et encore une fois mes chers amis sociologie dafa wane ne société base bi lay taayu société vie en société c'est la justice parce que nous avons tous renoncé ci principe bu utiliser violence contre l'autre ñun ñëpp ñoo bokk yem Ousmane Sonko ak dayo bu mu mënti am devant la justice dañ ko war a jox ses droits musuñ fi de l'histoire du Sénégal kenn musu fi gis pour des procès yu mel nii ñu enlever nit ki sont droit de candidat aux élections présidentielles Ablaye Wade lan la fi waxul lan la fi waxul et encore une fois du dama dégg sànq euh, sama turandoo Moussa naan jiiñ jiiñante mais mbir mi du jiiñante mel ni ay nit ñuy jiiñante on parle de rapport sur nos deniers publics <laughs> mais Khalifa Sall le rapport dafa le de Khalifa Sall ça existait wax ma fii kan moo fi gis ma sa teg bët rapport bi jël Khalifa Sall dugal ko ci kaso bi pendant deux ans kan moo ko fi mës a gis fii personne kan mm-hmm. ko mës a gis alors léegi rapport bi moom quand ça concerne membre de Benno Bokk Yaakaar kenn amul droit génne ko mais quand c'est l'opposition non seulement kenn amul droit génne ko mais mën nañ ci technique deux poids deux mesures lii la ñuy dund ci réew mi mm-hmm. et vous les journalistes faites attention parce que yéen seen rôle mooy quand même observer <laughs> ce que le gouvernement fait n'est-ce pas xool rapport yi génn ak ñi ci tudd mais vous allez dinañ leen wax parce que wax na leen ko ministre neen na leen bu ngeen ko waxatee ma tëj leen. mais comment léegi vous allez faire si des rapports parlent d'éléments importants yéen vous faites des commentaires vous allez vous retrouver en prison mais on a quand même droit un ministre koo xamante ne yow bu ñu lay juger sax bu ñu la juger fi ñu juger yeneen citoyens yi dañ lay juger par benn cour bu spécial parce que ministre nga mais privilège boobu de privilège boobu ça suffit. Mm. loolu doy na munoo yor alalu nit ñi. mais man su malal su ma soo yoroon sama alal. carrément jékki-jékki gis ngay dawal 4x4. takk ñetteel ñeenteel. oh mais dinaa ñëw sa kër. lool bool laa dinaa la ma malal yow mii sama alal ji damaa yaakaar na nga ko. waaye kan la ma du citoyen. c'est le droit du citoyen. que de que de se préoccuper de leen jox suñu alal. carrément Mame Mbaye Niang c'est pas Mame Mbaye Niang. il comme ni ma ko waxee. mbeddu melentaan la ñun ay tan lañu mais reviens un peu à l'étymologie du mot ministre encore ministre mooy serviteur encore encore qu'il est gentil parce que quand auparavant on disait pas ça chez les aristocrates